waaw parrainage bi xam nga parrainage sincèrement parle bu ñu soxleen daal Macky Sall def loolu quoi ndax xam nga comme loo xam ne day nar a indi fitna si si réew mi ah te réew mi yaakaar naa talañ leen lu ay fitna réew mi métti na métti koo xam ne talañ leneen quoi lu ay ay ay fitna waaw bu changé comme Sénégalais yëpp partout partout d'accord nañ ci affaire bi bañ bañ a jàll Saanaan Parle ñun d'accord d'accord ñu tey d'accord ñu ëllëg na bàyyi gars yi ku mën a dem élection dem yaa ngi dégg ku mënul ku mënul tamit toog mais warul dem def ay signature yow ma ci quoi man en ma ko gisee man ànd naa ci benn côté ànduma ci benn côté côté ma ànd mooy liste yu bëri amaluñu benn njëriñ parce que gars yi seen bopp lañ fi nekkal liste yu bëri jël suñu xaalis bi pasar pasaree ko gars yi fi mu nekk nii koo gis mi ngi toog sonn ci galère bi yooyu ñu jël ko inverse bu fekkee réew mi moo leen ñor. ñu investir ko ci réew mi moo leen gën moo gën quoi jeunesse bi yëpp mën cee gis seen bopp parents yëpp mën ee gis seen bopp li tax nag ma ànduma ci benn côté ak Macky Sall mooy defu ko pour dara politique rek pour wàññi ay adversaire waaw wàññi ay adversaire mën a libre ci yoonam Sénégal ñoru ko Sénégal ñorut président ñorut opposant Sénégal daal fi mu nekk ñun moom boo bëggee dégg-dëgg ñu ngi ci guute kenn ku nekk daal li ma gis nga gëm mën a demal sa bopp mais li si moom bu mënee wàññeeku moo gën jarut jarut nag ay mars ak ay yu ma xamul parce que yooyu yëpp taal réew la. bi nag euh, maa ngi ci ñaax sénégalais yi di góor góorgóorlu bu baax te xam ne sénégalais yi lii du loo xamante ne lu nekk buleet la te nit ki boo yoree sa kër nu la neex moo la am lu la neexul du fa am. kon opposants ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a bañ parrainage bi nee nu tey te ànd ak tekk ak tey te xam ne lii du loo xamante ne luy gaañ Sénégal la. yow mënoo jël koo xamante ne nii dafa nekk si àll bi wala koo xamante ne ni dafa day day day day day yëngu te xam ne amul xam-xam pour yor Sénégal mu gañe Sénégal yor ko Sénégal yóbbu ko foo xamante ne amulu Sénégal intérêt loolu intéressé wuñ ñu kon affaire yi parrainage bi bu ko président defee gënta dëgg moom mooy président mooy njiitu Sénégal mooy njiitu lépp loo xamante ne ni lu nekk Sénégal moom mooy njiitam mais problème mu parrainage bi dafa nekk loo xamante ne nii lu njëriñu ak Sénégal la. ku xool législative bi nu mu demee nga dugg si bureau de vote yi nga gis sama ay bulletins yoo xamante ne ay quarante cinq bulletins nga di ko jël pendant trente minutes quarante minutes mënoo jeexal di jël sa bulletins yi te benn kenn dong nga si mën a woteel kooku amul amuluñ benn intérêt président li mu def nii man ànd naa si man mi nga xamante ne man may Omar Niang dëkk Tambacounda di liggéey Dakar je suis prêt pour ànd ak moom si loolu. parrainage bi ay téeméeri candidat yoo xamante ne nii ñu ngi biir Sénégal te ñoom avant nga leen a gis campagne présidentielle moo jot du ñu dem mukk di nemmeeku askan bi kon bu campagne président jote da ñu ngi xaccul sa may pour war a dem palais loolu am lu ñu intérêt ku bëgg askan bi dangay ngay génn dem jàkkaarloo askan bi wax ak ñoom jàppalante leen miinante ak ñoom ba heure boo bëggee réew mi boo ko nar am même boo bokku si parrainage bi sax yow boo ko bëggee am dañ la koy jox. parrainage bi dégg nañ ci ay wax nag dégg nañ ci ay wax du benn du ñaar. Euh, ñu wax ni nag euh, arrangé wu leen wala ñu wax ni baaxu ñoom ñoo ëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo d'accord ni que parrainage war nañ ko def yaakaar naa euh, parti au moom moo wax ni moom parrainage neex na ko opposant ñoom ñoo ne parrainage neexu leen te yaakaar naa parrainage daal dafa nekk li nga xamante ni bu ñu ko mënoon éviter moom mooy gën parce que mënoo bàyyi ba élection yi jub nga ne da ngay da ngay def da ngay indi ay yeneen vote yeneen loi yi nga xam ne affaire de parrainage pour maanaam ni ñu koy waxee sax éliminer yenn opposants yi wala yenn adversaires yi loolu nekkul li nga xamante ni nii nii lu rafet la wala lu jaaru yoon du lu jaaru yoon wax dëgg naa su ma soxleen comme Macky Sall yi wax nañ ci opposants yi wax nañ ci te lu mel ni xewoon na le 23 juin bii passé war na ci bàyyi xelam parce que keroog rek maa ngi ko doon déglu ci benn reportage am bu waa seen bu waa fajari teg mu ci doon wax te gisoon naa ne jour boobu noonu maanaam nu ñu ñëwee woon bu bu bu yàlla sottil woon ndox bu sedd ci loolu noonu rek bu noonu na indi leneen li nga xamante ni nii maanaam suñu réew mi lay lay lay ñaawal wala suñu réew lay indi fi nga xamante ni nii rafet ah, li li si bëri maanaam dañuy dañ baay rek ah, ku xam ne moom am nga kàttan pour dem mais nga dem mais après loo si jëlee nga xam ne loolu nga si jëlee mais warul taxaw di freiner gars yi ne ñi dañuy dem ñi ñi duñ dem ay trois ay trois yooyu baaxul d'accord ñu mais loolu jaru ko ndax li tax jaru ko mooy bu ñu defee mars mars boobu ñi siy dem booy yi xam ne nii dama nañ ma baal quoi mais booy si dem yëpp genn wàll opposant bi siy dem seen doom yi nekkuñ ca booy si dem ay booy ñu force mbedd mi la ku ci gaañ wala ku ñu ci jàpp tëj la say parents ngay sonal man daal li may lancé sama moromu jeunes yi bu ñu ko déggee mooy ñu bañ a topp yooyu. waaw si marche boobu noonu man nag du ma baax na quoi parce que tamit aussi nit ki bu fekkee am ngeen problème pour man war ngeen ko toog waxtaanee ko. yaakaar naa Macky Sall récemment woote na opposant yi pour ñu toog waxtaanee ko pour man mënoon nañ toog waxtaanee problème ñoo bokk fu buñ buñ mënoon toog waxtaanee ko aussi tamit xam nga tamit nit kii bu fekkee yaa ngi marché tamit te amoo ci ndigal wala amoo ci doo boo marché xam nga policiers yi wala GMI mën nañ ñëwee ay lu nekk te ñooñ ñu ko sama commune bi waxee woon sànq ñu ci ëpp ba xool bu baax du seen famille ñoom ñooy ñëw ci marché yi wala yu demee noonu doo booy xool opposants yi ñooy ñëw ak seen i gardien wala yu demee noonu après loolu amul solo ko waa dañ toog waxtaanee ko moo gën a rafet nii bëggee. bu doon sama sago te toog seen kër ànd ak jàmm parce que Sénégal jàmm rek moo fi gën ñun ñëpp ñoo ko bokk muy sénégalais bi muy keneen képp ku nekk biir Sénégal actuellement nii yow si biir Sénégal nga bokk. kon affaire yi doxu ñaxtu boobu amul benn intérêt amul benn intérêt opposants yi neenu toog seen kër te xool président fan la jëm ak réew mi si affaire yi parrainage bi te parrainage bi ñu def ñoom seen intérêt la ñoom du intérêt boo xamante ne ni intérêt la moom intérêt Sénégal ñëpp la. waaw loolu rek laa amoon li ma. bu fekkee marché mënul ñàkk ñu marché bañ a taal bañ a yàq rek ñu yem foofu ñu xool nuñ koy lijjantee rek waaye yàq moom day nuru leneen yàq moom du nu jur lu baax moom. bu koy waxee mooy maanaam comme du demee ne nii te opposition dañu dañoo war a tàngal te li ñaanuñu yàlla li amul 23 juin amaat fii dañu ñaan yàlla ñaan ko mu rëkkale ci li mu wax dellu si gannaaw xam naa adduna bi jeexul waaw man su ma mën loolu laa koy wax mu dellu si gannaaw xam nga moo gën fitna di am si réew mi. waaw li may lancer Macky Sall nag mooy réew mi ñor ko quoi. réew mi ñor ko mu liggéey ngir réew mi waaw bàyyi adversaire yi nga xam ne dañ ne buntu xatal bàyyi affaire parce que ku nekk ak sa sens moom yàlla moo ko jox réew mi te préparé ko woon mais nag bàyyi koo xam ne nii yàlla namm na kaa jox réew mi mu teg ko ci loxoom mais pas buntu xatal dugg na fi génn na fi loolu te neex lu neex yàlla daal mooy am mun naa buntu xatal buntu xatal mais bu ko yàlla ne day wàcc centimètre deuxième tour sax du fa àgg waaw bu yàlla ne mooy toogaat premier tour lay gagné waaw na gëm loolu daal gëm ne yàlla mooy joxe mooy xañe waaw Macky Sall bu ma koy lancé message bu ma koy lancé moom mooy maanaam muy déglu citoyen yi quoi loolu moo ëpp solo quoi parce que ñun ñoo ko faloon tamit am na lu taxaw yaakaar bu ñu amoon ci moom na bàyyi xel ci yaakaar boobu noonu ñu amoon moom waaw ba buy def na def li nga xamante ni day jëmal réew mi kanam paa mu xool moom kese lu koy jëmal kanam te xam naa ne bu fekkee def na loolu tamit aussi du ko amal benn solo parce que nit ki moom booy def moom da ngay fekkee da laa jiital quoi yow da a def exactement yow lan mooy moo koy jëmale kanam ba fu ñu toll gars yi naw mais ak nii nii nii muy demee moom war na mën a teggi tànkam tuuti tuuti xam nga bàyyi ab xelam nit ci àdduna lañ nekk te àdduna xam nga rek na rafet quoi yow man xiyaam loolu laa message bu ma koy lancé na bàyyi nit yi xel citoyen yi nation bi na leen bàyyi xel man daal laa koy lancé quoi waaw. Macky li ma koy message moom en tant que président de la république na am mën yërmande si askan bi te mu si yoon bi parce que lii tax mu def parrainage bi pour dimbale askan bi la comprendre nga parce que boo xoolee ñoo xamante ne ni sam waay jànguñu tariwuñu ñu bëgg ne dañuy yor réew mi amulul Sénégal benn intérêt kon moom bu defee lii franchement parle lu rafet la lu baax la man ànd naa seen moom si loolu te moom tamit na jéggale parce que njiit boo jiitee da nga war a jéggale ci nëkkankaa su ma amoon lu ma koy wax moom mooy mu waxtaan ak ñoom mu dindi ko bu munul ñàkk wala ñu puusaat sax li nga xamante ne dañ na suba la suba lañ ko war a voté ñu puus bi ba benn ñoon ñu xoolaat nu ñuy def ñu pousse vote député yi ba beneen yoon. jàmm dina am nañu wote waaye soxaluñu aaye soxaluñu histoire soxaluñu dara fii réewu lislaam la lislaam moo sax fii te lislaam mooy sax ba faw nañu may jàmma sax ci réew mi jàmm la ñu naañ te nañu may jàmm am fii ba Casamance jàmm la ñu bugg te nañu may jàmm am.